est-ce que ñu am benn vice-présidence bu ëpp doole sax le président élu je ne pense pas déjà ci constitution bi mi ngi ci parce que vice-président bi c'est pas mhm. encore éliminé mhm. foog ñu bëri bàyyi ci loolu xel dulu dulu waa Pastef dem jéggaani fële ñu fekk ci mécanisme bi la ci niñ tëggee réew mi waaye taaluñ ko mhm. xam nga léeg-léeg nga dugg ci studio bi fekk six projecteurs ñaar yële tàqul waaye mi ngi fi doo koy utiliser quatre yi rek ngay utiliser n'empêche boo taalee yële lu bees la. waaye mi ngi fi woon. donc poste vice président bi noonu la mel ci suñu appareil d'état bi mi ngi fi woon déjà. lim koy changé mooy poste premier ministre du fi lu bees récemment la ñëwaat Macky Sall éliminé na ko Abdou Diouf éliminé na ko. Mhm. du président yaakaar naa bu ko mus a maintenir. Mhm. mais Macky éliminé na ko indiwaat ko Abdou Diouf éliminé na ko indiwaat ko. Mhm. c'est plus d'habitude ñu xam état bi dañ lay wax la lu am solo la parce que le premier ministre ni muy amul doole gi mu war am c'est pas le chef du gouvernement en fait. Mhm. amul doole gi mu war am prérogative yu mu war am depuis bon bout temps. donc soo ko éliminer amul lu muy yàq. maintenant prérogative yi ngay jox vice président li nga koy dénk fi muy uutu président je pense que dafay oyofal président ci mu mun a concentré wu ci yeneen affaire mhm. léegi nag ndax dana indi li nit ñi di yaakaar dualité au sommet de l'État je ne pense mi ngi indi dualité ci kaw yow nga jël sa dauphin. indi ko. fal ko mu ëpp la doole. dualité au sommet de l' noonu lay amee comme Wade Idrissa Seck. Wade dafa jël Idi def ko premier ministre. Idi dem ba gën ko populaire ci état bi. moom it bëggu nguur ak xëy na un peu trop de prétention. Mm-hmm. ñëw dëkk en face le palais de la république maam érigé fa ay bureau xam nga mm-hmm. idi dafa ñëw loolu ñu bëri duñ ko fàtte mm-hmm. idi dañ ko def premier ministre mu jël maison militaire fi Macky doon inauguré waat keroog toj statue bi fa nekkoon loolu ñu bëri fàtte nañ ko mooy militaire français bi militaire africain bi érigé mm-hmm. fa moom quartier général am janoog palais nit ñi di ko rente renwuñu pale fa la dualité au sommet de l'état bi commencé mooy un dauphin qui devient plus influent que le mais quand le maître est plus influent que le dauphin y' a pas de problème Ousmane c' est le maître Diomaye c' est le dauphin. mais bu bu ñu. dama ah, ñëw bu doon Diomaye bu doon Ousmane. Hmm. mooy président. Hmm. jël Diomaye def ko vice président. Hmm. Diomaye gën a influent Ousmane. ça loolu moo doon am problème. loolu la ñuy wax dualité au sommet de l' état mais bu dee Diomaye mooy président di dauphin bi Ousmane. di le leader di vice président Ousmane bu gënee populaire Diomaye loolu du problème Diomaye ndax Diomaye dauphin Ousmane la au contraire Diomaye bu sañoon. bu nekkee président day démissionné Ousmane nekk président mais loolu mënut na. Hmm. ay comprendre donc Ousmane ko gën a populaire Diomaye fay loolu du cas c'est l'ordre naturel des choses. Hmm. Ousmane Sonko gën a influence Diomaye Faye loolu du cas c'est l'ordre naturel des choses Ousmane c'est le wax ci wàllum institution tamit xam nga kii la fal. Mhm. ci des kenn falu ko. Diomaye la mooy président de la République Ousmane bu fekkee moom lañ ko jox. Mhm. mais est-ce que loolu indi ay jafe-jafe tamit ci ci ci doxalinu réew mi mu am peut-être que ay jafe-jafe. ay xëccoo waaw kii ne man maay def lii wala est-ce que du indi du ñu indil ay problème. si parce que tamit Diomaye même su fekkente ne Ousmane mooy mooy dauphin moom moom mooy dauphin Ousmane. tamit il faut am na loo xam si nit la ko am même suñ ko moom la ñu fal et puis tamit mu am mérite. et je pense que tamit am na loo xam ne si nii mun ñu ko mun ñu ko def mu koy nangu. si mun na indi problème. oui ci kaw. l' intérêt général taxu leen jug. Mhm. mooy l' intérêt de servir l' intérêt de dérouler leur programme. Mhm. Ousmane ak Diomaye ñi nga am problème bu dee ku nekk da nga gis sa bopp. Mhm. mooy Ousmane gis boppam Diomaye gis boppam. Mhm. waaye tant que ñu ngi gis réew mi lii di réew mi mhm. l' général. Hmm? l' de vouloir servir. Mhm. ñoom ñaar ñëpp dañuy effacé wu ce sont ils seront des serviteurs de la nation. à de ce moment Diomaye du gis ne Ousmane mi ngi koy piétiner Ousmane du gis ne Diomaye mi ngi koy fiire bu dee l' intérêt général moo leen tax a ñëw mais bu dee nag l' intérêt général taxul ñëw su boobaa li ngay wax mën naa nekk. mais donc jàppal ne poste vice président contrairement ak ñu bëri débat bi nañ ko bëgg a poussé du fi lu bees du luñ indi teg fekk nañ ko ci mécanisme bi dañ ko activé wul woon donc buñ ko activer y a pas de problème. du fi indi lu lu ci mel ne euh, comme li daloon Senghor ak. Euh, euh, Mamadou mu Mamadou Dia ay lu mel ne ay coup d'état yu ni mel. parce que mm. daf ci yomb. Mm. bon façon. Ousmane ak Diomaye coup d'état yooyu moom duñ ko ci xalaat. mais on est en ci laa ñëw si mais. oui l'affaire Dia Senghor. Mm-hmm. moo ñu indi régime hyper présidentiel bi ñu nekk. Mm-hmm. mais à partir wu crise boobu ci la président. jël doole yëpp jël doole yëpp jox ko boppam. Mm-hmm. coowal Ousmane Sonko ak Macky mooy mettraat mooy sonner sa fin. ci la jëlaat pouvoir yi nekk ci loxo président wàññi ko. parce que ñëpp d'accord nañ ne pouvoir di ci loxo président dafa bëri donc c'est tout à fait normal man lu ma d'accord laa gëm naa ne war nañ ko mën a test sa xol hmm. gëmu mu indi ay problème au sommet de l'État non non mais su ñu defoon su ñu non seulement ça permet ça permet su ñu defoon régime parlementaire sax nga xam ne. boobu nag mooy crise hmm. boobu muy crise et puis Dia Senghor c'était comme ça boobu muy crise régime parlementaire mooy crise ci suñu démocratie parce que c'est deux pouvoirs yuy heurté wu. Mhm. mais quand c'est président vice président ñoom ñaar ñoo bokk. benn appareil exécutif bi lay nekk. ñoom ñaar dañuy contrer wante rek. waaw mais exécutif maanaam. dañuy peese balance. Mhm. le président n'aura pas trop de force le vice président n'aura pas aussi trop de force donc mooy li am États-Unis rek. Mhm, mais États-Unis dañuy gis ne léeg-léeg xam nga si surtout si dañuy gis ne. c'est très léeg-léeg waaw day day non day am. léeg-léeg daanaka am président am position boo xam ne vice président adapté wu ko. mais day maandu waaw. doo gis mukk dualité bi. si d'accord Ousmane léegi nag bëggoon naa ñu taxaw foofu programme bi xam nga yëf yi du vice président bi rek. waaw programme bu mucc ayib la. Mhm. li ma gën a séduire bokk na ci droit de la femme yi ñu bëgg jëmale kanam yaatal loolu réponse ci ñi doon wax ne Pastef parti salafiste la mhm. Pastef parti islamiste la mhm. amul benn parti islamiste buy buy jëmale ci kanam àq ak yelleefu jigéen mhm. donc programme bi moom réponse ci ñuy wax ne Pastef parti islamiste la parti salafiste la loolu teggi na ko mais loolu c'est c'est c'est un plus ci jigéen ñi jigéen ñi ci réew mi seen àq code de la famille maanaam ils ont osé poser des débats yoo xam ne ça intéresse les Sénégalais je pense que la gente féminine les féministes et autres ak jigéen yi nga xam duñ sax féministe waaye dañoo gëm ni jigéen ak xam ak yelleefam ci suñu maam ci suñuy euh, nu ñu koy maam ci suñu constitution des na ñoom yooyu euh, euh, promulgué nañ ko beneen bi mais yow Mahfouz nit ñi du ñu wax ci seen programme ñu bëgg réew mi pourtant ñu ngi ciy wax ah. yi. pourtant ñu ngi ciy wax. man am na ñoo xam gisaguma seen. Ah, programme gars yi ñu ngi ñu ngi déroulé seen programme ah, am programme. waaw mhm. ah, na ñu amul programme. <laughs> kan daay programme am na candidat boo xam dégguma lan mooy programme. kooku kan ci yan axe non bëgguma tudd. yow programme kan ak kan nga gis naa bu Diomaye gis naa bu Boun Abdallah Dionne. Kamu. Kamu gis naa ko. Euh, gis naa aussi bu. mambooy Mamboy Diawo gis naa ko Idrissa Seck. gis nga programme Idrissa Seck. si gis nga programme ma ma yàgg na de yàgg na de waaw xaw ma nag boobu la indi xaw ma. waaw ah. indi. Anta Babacar Ngom am na programme est-ce que moom. dégguma ko gisuma programme am de ah. dama. Euh, Ndiaye. Daouda Ndiaye. dégguma amul programme. waxuma amul ko. déggoo programme. déedéet est yaa leen di topp sax. waaw bu baax kandidaay bi ñu ngi leen a demal. Euh, kan moo ci def Cheikh Tidiane Dieye moom moom. moom programme mooy bu mooy ak. mooy bu jamaay euh, aussi. parce wax ci. Ah, mooy bu jamaay ba rek léegi demal. ak kan moo ci des. bari nañ kat yow tudd ko candidat yi. des bëri na kay bëri na dañoo bari nag. demal hmm, Amadou Ba. continuité am nañu am nañu kan am na nañu am nañu programme. luy programme Amadou Ba. am nañ programme déet defal naa ko rek defal wax rek te yàlla tax luy programme Ba. Amadou Ba mu programme. tegagu ko table Ba bokkul. waaw kan kan moo. des. ma xool kan moo des. ñu hmm, def bëri na. bëri na de. Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye. dégg dégg ko dégg ko ak kan. taxaw taxaw tax Ababacar Khalifa Ababacar Sall. gisaguma programme. ñu am nañ programme de. waxuma amul gisuma ko laa. anamu nu mu tudd am naa la envoyé programme nu mu tudd. naa la envoyé programme ah yor nga ko. waaw ah, naa la envoyé programme yor nga ko programme yëpp naa la envoyé. non yor nga bu Khalifa laa la. xaaral rek yow moom pare naa la envoyé. non defal na non damaa bëgg noonu li ñuy dafa am solo yor nga ko. non dafa am solo. dafa am solo yor nga maa ngi fi programme yu bëree bëri. mais xalifa yor nga ko nga xaaral rek. moom tudd xool ko après dinaa la dinaa la. nga li tax. Hmm. man dama gëm ni fi mu toll nii candidat bu ñu indilul programme. waaw wax ni mu bëgg a yoree réew ak réew nu mu sérieux. waaw man dootuma tudd sa man dootuma tudd sa candidature. déet waay ah oui xanaa yow boo bëggee yor réew mi. mais sénégalais yi tamit mais sénégalais est-ce que gëm nañu ay. programme Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall <laughs> na programme. mais Sénégal est ce que gëm nañu ay programme tamit. waaw fi mu toll nii nag programme la war a waxtaanee. waaw mais loolu mooy problème mais ne est ce ah, gëm nañu ko na programme. non mais Sénégal tamit fi wax nii. man daal maa ngi xaar bu may ñëwaat lundi nga yónnee ma mooy ñi nga ma yónnee seen programme daal candidature ñooñu laay waxtaanee. ñi ma la. ñi ñi nga yor seen programme. te xam après après dafa dafa xaw a bëri nag. Mm-hmm. waaw ñi ma xamul seen programme Mamadou Lamine Diallo. am na non quoi am am na waaw ngi nii moom am na programme waaw moom xam naa ni en tout cas programme yi bari na di may ci yor xam naa du fi du fi xaj pour mu man koo pour mu ko génne. Mm-hmm. mais am na yu bëree bëree bëri ñaar la regard ñu gën ñu gën ñu gën ko ñu gën ko étudier mais euh, Ousmane ko ak Diomaye yi. te yi génn dem am na loo ma ci sànni woon lu xew.